bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah walsalaatu walsalaamu ala mawlana rasulillah wa alihi wa saxbihi wa xulafaihi dawi alfadli waljah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ixwat alimaani walaqida ñu ngi ànd ak yéen ànd ak suñu bopp ci buntu laab ba léegi ñu ngi woon ci xeeti ndox yi ñeenti xeeti ndox yi am waxtaane woon nañ ko suñu bind bi weesu ñu ngi doon waxtaane desitu ndox yi moom lañuy tudd tudde al asar mu di jamu as suuru bii firi desit buñ ko waxee fii ci wàllu fiq nag desitu naan yi ñu séddale woon ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi moo di desit woo xam ne laab na ba noppi mën naa laabal te moo di desitu doomu aadama sawaun kaana musliman aw kaafiran moo xam jullit bu naan la ba noppi mu des walla yéeféer bu naan la ba noppi mu des waaye bu dee yéeféer bi nag charte bi mooy ida lam yakun fi famihi najasa bu fekkent ne gémmiñam sobe nekku ca nekkul itam di kuy jëfandikoo sàngara lu dul ñu dema dema dem ba wóolu ne gémmiñ ga laab na sobe sa ca nekkoon effet ba jeex na takk kooku bu naanee bu desee ndox mooma laab ba noppi mën naa laabal waxoon nañ ne itam jigéen ju indisposé bu naanee dara mu des walla koo xam ne dafa amee janaaba mu naan dara la ca des janaaba ja mu yore du dox digganteeg ndox mooma laab ba noppi mën a laabal walla ñu sangu ci siwo walla paan la ca des keneen ko amee janaaba walla ko amee xayd walla nifaas bu ñëwee mën na koo jëfandikoo nee na li ñuy tudde ad dawaab moo di yi nga xam ne dafay dukkat ci kaw suuf ak bàyyi ma yi moo xam seen ñam dañ koy lekk walla lu mel ne nag lu mel ne xar lu mel ne gëléem lu mel ne bay bëy yooyu nga xam ne makulatul laxmi la bu ñu naanee la ca des mën nañ koo jëfandikoo laab na ba noppi mën naa laabal wala mu nekk loo xam ne ndawal ga kenn du ko lekk lu mel ne baxla yi ak lu mel ne mbaam sëf yi mbaam ngonk yi yooyu ñam kenn du ko lekk bu ñu naanee ba mu des mën nañ caa jëfandikoo wala muy ndeg ment yi wala ba ci mbaam xuux waaye nag na fekk sobe bañ a taq ci seen gémmiñ loolu mooy charte bi bi ci tegu moo di desitu muus ak jinax bu ñu demee ba am certitude ci ne lekkuñu sobe seen gémmiñ set na wicc taqul benn sobe seen desit mën nañ koo jëfandikoo ci lépp loo xam ne dafay laab ba noppi di laabal loolu moo doon bind bu njëkk bi tey nag ñu ñëw ci tomb ñaareel bi moo di desit woo xam ne sobe daf caa bi te moo di desitu doomu aadama boo xam ne gémmiñam sobe dafa taq sobe muy benn waxoon nañ ne doomu aadama moo xam jullit la wala muy yéeféer desitam laab na waaye bu dee yéeféer bi nañu wóor ne gémmiñam amul sobe wala nekkul kuy naan sàngara kon bu fekkente ne bii doomu aadama dafa naan naan desal te fekk na booba gémmiñam sobe nga ca wala mu nekk animal boo xam ne dafay jëfandikoo sobe lu mel ne muus lu mel ne jinax nga xam ne fu nekk lañuy dugg lu nekk mën nañ koo lekk waxoon nañ ne bu fekkente ne bii wóor nañu ne seen gémmiñ amul sobe seen desit laab na mën a laabal waaye bii yoon nag dañoo gis muus moo xam ne walla jinax joo xam ne gémmiñ nga sobe daf ca nekk kon bu fekkente ne bii kaay yi dafa am kaawu doomu aadama boo xam ne gémmiñ nga sobe daf ca nekk wala muy animaux yoo xam ne dafay jëfandikoo sobe lu mel ne muus ak jinax ñu gis ne gémmeñ ka sobe nga ca kaana al maa alladi xaalatathu najasatu najisan ndox mooma nga xam ne sobe dafa daf caa bi wala boo ka ko doon jëfandikoo sobe dafa nekk ci gémmiñam ndox mooma itam nag dafay daal di sobewu waaye nag bu ñu demee ba am certitude ci ne yooyu ñu tudd seen gémmiñ laab na ndox moomu laab na bu fekkente ni bii amuñu ca certitude wa in lam yuclam yuxtafaru ma ak attaxarruzu minhu waaw sharia dafa bari yërmande buñ demee nag ba nar caa am xamuñu sharia nee na lépp loo xamante ne bii mooy tondi ko ko dafay jafe yàlla jéggale na ko kon loolu mbokk yi mooy tomb ñaareel bi xukmu suuri alladi xaalatathu an najasatu ak teb desit woo xam ne sobe dafa jaxasoo ak moom te moo di desitu doomu aadama boo xam ne gémmiñam sobe daf ca nekk moo xam dafay naan sàngara walla muy jëfandikoo di leneen loo xam ne daal laabul ci diine ñu gis ko ci gémmiñ nga mu taq ca mu naan ba noppi la ca des dañuy jàpp ne ndox moomu dafa am sobe mboolem animaux yi nga xam ne itam dañuy lekk sobe lu mel ne muus wala lu mel ne janax wala ganaar yi nga xam ne itam daanaka mën nañoo nekk ca tookóor ba wala ñu nekk ca làkk ba wala ñu nekk ci biir kër gi lu ñu romb mën nañ koo lekk di jëfandikoo sobe ñu gis sobe mu taq ci seen gémmiñ bu ñu dëppee seen gémmiñ naan ca ndox ba ndox ma des ndox mooma nga xam ne ñoom dañ koo jëfandikoo te sobe mi ngi taq ci seen gémmiñ ndox mooma itam desit woowa dañuy jàpp ne sobe la bu ko kenn jëfandikoo waaye bu ñu demee nag ba def taxaquq wa in taxaqna taharata afwahiha bu ñu demee ba birliku ne ba am certitude ci ne seen gémmiñ laab na sharia nee ndox mooma laab na bu fekkente ne bi amuñu ca certitude xamuñu te mënuñoo vérifier mënuñoo gëstu ba xam ndax gémmiñ nga taqoon na sobe wala taqul sobe kilifa gi nee wa in lam yu'lam bu fekkente ne bi xamuñu kooku yuxtafaru aw tafar def na jéggale ma yataadaru at taxaruzu minhu la nga xamante ne bii kenn mënu koo moytandiku kenn mënu koo daw loola dañ koy jéggale kon loolu li muy wane mooy ndox moomu mën nañ koo jëfandikoo tomb ñetteel bi moo di desit woo xam ne dañ koo sib te jàngoon nañu ci xeeti ndox yi ne xeetu ñeenteel bi moo di almaa ul makruh ndox moo xam ne dañ koo sib mu ne wa huwa kalma il yasiir mooy ndox moo xam ne dafa néew maa kaana qadra aaniyati l wudui aw il gusli fa ndox moo xam ne daanaka ndab li ngay jàppe rek walla ndab li ngay sangoo wala lu ko yées ndox mu mel noonu nga am moomu ndox xam nga bariwul ida xallat fiihi najasatun qalila bu fekkent ne bii sobe su néew daf caa wat daf caa wàcc lu mel ne benn toq daf caa wàcc fa tabarakallahu wa yukrahu isticmaaluhu fi rafaci alxadasi jëfandikoo ko ci yëkkati am toj sibeef na ko lu ñu sib nag waxoon na la mooy loo xam ne moom rekk moo fi nekk amuñu leneen maanaam bu fekkente ne bii am nañu leneen dañ koy sib waaye bu fekkente ne moom rekk moo fi nekk dara nekku ci walla karahata fi isticmaalihi fi l aadaat ndox mu mel noonu de kenn bañul ku ko jëfandikoo ci wàllu aada ak dindi sobe ci kaw nii waaye nag jëfandikoo ko pour yëkkati am toj wala nga war caa jàpp wala nga war caa sangu loolu dafa mel ne boroom téere bi neen dañ koo sib loolu moo di almaa ul yasir desitu loo xam ne desit woo xam ne dañ koo sib nag kon mooy lan moo di wa huwa suuru maa laa yatawaqa an najasata desitu loo xam ne du moytandiku sobe lu mel ne yenn xeeti picc yi lu mel ne yenn xeeti animal yi nga xam ne duñu moytundiku sobe ida lam nataxaqaq taharataha bu fekkente ne bi amuñu certitude ci ne dañoo laab aw najaasataha ñuy hésité est-ce que laab na wala am na sobe ak desiti koo xam ne naankatu sàngara la waaye la mu desal dañoo gis ne melow ndox ma soppeekuwul couleur ba soppeekuwul melo soppeekuwul xet ga soppeekuwul bu fekkente ni bi dafa soppeeku kooku ndox mooma laabatul bu fekkente ni bii gis nañ ko mu naan sàngara gémmiñ gaa ngi xeeñ mu naan ba mu des nga teg ki sa bët fa tabaarakallaahu kooku itam dalul xel kenn du ko jëfandikoo waaye bu fekkente ne bii nag moom xam nañ ne naankatu sàngara la waaye bii yoon nga ñëw gis mu naan ci ndox jamono bi mu ciy naan booba fekk na sàngara sa wuri na xet ga dem na nga gis ko mu naan gis ko mu naan ci ndox ba ndox ma des waaye nga xam ne kii kat dana jëfandikoo ñoll waaye ndox mi mu desal nag kenn ci melo yooyu soppeekuwul ndox moomu la wax ne dañ koo sib foofu am na ay sew-sew waxoon nañ leen desitu doomu aadama laab na moo xam jullit la wala mu yéeféer waaye bu dee yéeféer bi da fekk gémmiñam sobe nekku ca nekkul itam naan katu sàngara ki nga xam ne dafa naan sàngara waaye dem naa dem ba sàngara sa wuri xet ga dañ na nga xam ne bu la romboon doo xam ne naan naan katu sàngara waaye yow xam nga ne naankatu sàngara la mu naan ci am ndox butéel wala pot wala lu mën a doon la ca des bu fekkente ne bii kenn ca melo yooya soppeekuwul ndax bam mu gëjee naan xëy na yàgg na melo wa xet ga couleur ba dara changé wul boo amee meneen ndox sip nañu ndox mooma soo amul meneen ndox nag mën nga ko jëfandikoo wal maa alladi walaga fiihi alkalbu ak ndox moo xam ne ab xaj def caa dugal gémmiñam xaj xaj xab ko ba noppi ndox mooma day bu fekkente ne bii moom rek moo fa nekk mën nga ko jëfandikoo waaye bu fekkente ne am nga mel ne ndox day sib nañu ndox moomu xaj nag bu fekkente ne bii dafa dugal gémmiñam ci biir ndox nee na ndab loolu dañ koy raxas juróom-ñaari yoon loolu mooy li nga xam ne moo aju woon ci dese bi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla may ñu dégg ak topp bu fekkent ni bii leer na ci yàlla la bu fekkente ni bii dese naa leer ci man mii ko doon leeral la sama dégg moo des ñu ngi ñaan yàlla mu boole ñu nangul ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax ci at mu bees mi di atum 1442 ci gàddaay ji di ñaan suñu boroom tasuwaa bii ñu nekk ak ashura bi yàlla ñu yàlla boole nangul koor giñ ci def di leen baalu xaq bu baax a baax a baax a baax di yaakaar ne yéen itam dangeen ñu baal yàlla nañ yàlla boole jéggal xaq yi dox suñu diggante ak suñu boroom yàlla nañ ko yàlla jéggal xaq yi dox ci suñuy diggante te fay war ci te xaq sew lool mucc ci jafe lool yàlla nañ yàlla wutu fayal ñu ko ci magasin wu ngëneelam yu teddee ak yërmandeem te bañ koo jël ci sunu yiw yàlla bu mu nekk suñu mujj tam xarit yàlla na fi yàlla bàyyi suñuy kilifa diine yàlla sàmm leen aar leen sàmm fi boroom xam-xam yi ilimaan yi muqaddam yi cheikh yi kilifay lislaam bi yépp ci Sénégal ak bitim réew yàlla na yàlla sàmm ñépp yàlla sàmm suñu réew musal ñu ci mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee jàmm ñi ci génn àdduna ñëpp yal na leen yàlla yërëm ñi nekk sous traitement yal na leen yàlla yëkkateeg jàmm ñi mu dalul yal na leen ci yàlla boole musal ñi ngi leen di baalu xaq bu baax a baax a baax di rafetal suñu njort suñu digganteeg suñu borom xam na ñun matuñu moom moo mat amuñu moom moo am moom moo tedd moo baax moo kawe moo yiw ñi ngi ñaan suñu borom mu jëflanteeg ñun ci moom ni mu toll ci mbaaxam ak yërmandeem. bañ a seet ñun ni ñu toll ci tilim ak taq ak mën tooñ ak rëy làmmiñ wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wassalaamu aleykum wa barakaatu.